You morning people. Vous êtes morning dans le Morning King. La rubrique Bon Plan avec Larry. waaw Larry affaire de civilisation. na de. waaw xam nga. daa sukkandiku nee la civilisation augmente la valeur de l'homme et celle de. <laughs> wow. <laughs> léegi tey bëgg nga fël la. non mais légui da nga bëgg a. une phrase de haute portée philosophique daaw. non dafa bëgg wax ne Sénégalais dañoo mal civilisé. <laughs> non néew ma sénégalais dañoo mal civilisé mais daf ci am ñoo xamante ne dañoo mal civilisé <laughs> mal civilisation weesuwul ngay jox nit lekk ndekki jël kaas bi ne ko am jël eh. mburu mi jox ko bu dee nii mu tuuru ci kawam wala pain bi mburu boo xam nañ si kéet bi sax nañ la koy joxee noonu daal di koy lëmas bu ma ko jox ma yoo xamante ne boo ma si mayee lekk <laughs> lu lekk bi neex neex dama la koy delloo du ko lekk ndax

parce que dinañ la ko tegal foo xamante ne rafet na après booy génn ci sutura nga dem jëndi loo lekk si wa nga jënd pain wala dara mais am na yoo xamante ne nit da ngay civilisé léegi boo demee partout ci grande surface yi ak marché yi boo demee ay marché sama wetu kër marché monument marché boo dem dañu jaay ay plateau yoo xamante ne yu rafet la civilisé par exemple am na yoo xamante ne uniquement pour ay ndekki la petit déjeuner ñi nga xamante ne ñoom sont un peu civilisé dañuy def ay petit déjeuner au lit Yacine voilà mi ngi nii ah c'est joli ça. c'est très joli ba a en aluminium lañ koy am en bois amna inox yépp Je si. man plastique bu bëgg un baaxul dara. voilà da ngay ñëw bu da nga par exemple damay jël exemple tonton nga dama bëgg mu jël ma borom ma jël mu jël ma <laughs> bu sama borom kër bu lundi mardi mercredi jeudi. damay ñëw chéri laa koy wooye bu dee àjjuma nag ma ne ko alaaji wala sang bi <laughs> loolu dara fay seddal bés bi est-ce que euh, petit c'est conseillé ou pas en matière de santé non c'est pas c'est pas conseillé suñu wax tey ma madame santé bii dama cee dugalul santé ci suñu wax <laughs>

du pour petit déjeuner kese am na yoo xam ne dafay nekk day bëri ay euh, plateau ay compartiment lay bëri da ngay def fii voilà comme yi mën nga ci def reer def fi sa crudité mhm. def fi sa pain def sa ketchup ak lepp li nga soxla day bëri ay portion yo xof foofu nga koy def am voilà yi mën nga def say gâteau def sa fruit yeb ça c'est le service de table classique en fait voilà pourtant légui yi nga xamantene mom nga doon gis ci resto yi mhm. euh, yu mag yi kër boo dem parce que cherul ay articles yoo xamante ne bu ci gën a ay neuf mille lay jar dix mille francs am na yoo xamante ne moins de cinq mille francs nga daal di koy am man di sama rab gën a bañ mooy ngay lekk surtout ndekk mburu mi di ruus. ah non boobu mënu ko supporter. loolu man mënu ko supporter. xanaa nga teg ko si assiette sax. mu tane voilà. mais li nga jëndee assiette boo demee boo jënd ay assiette porcelaine. nga dem jënd benn plateau boo xamante ne même pour nga leen di jàngal les bonnes manières. ñu daal di ko defee ñu civilisé yii c'est pour les bébés. <laughs> seen chaise la ñuy toog ñu daal di leen leen lépp bu ko defee dara du fa ruus buñ paree daal di leen di yëkkati daal di nettoyer tey lii lañ leen indiloon xamante ne moom moom mooy ay plateau. Mhm. Euh, ñi civilisé ñi mel ni aal xam naa aal moom ku ko tegal ndékki jox ko la mësal ko ci mburu dalay pes dañ ma jox taas bi rek mburu bi ak rek waaw en tout cas man je pense que plateau yi de plus en plus les gens commencent à le prendre hein. set lo légui sax nit ñi euh, c'est devenu un luxe euh, un truc euh, assez funny nga gan sax même bon servir à boire Ça da ngay gis da ngay dem tek ko ci sa plateau service bu rafet. jaagar jaagar une nécessité voilà donc da ngay gis nga jaagar jaagar rek plateau xam nga ñeu tek la différence c'est chacun cherche son plateau le plus le plus fun le plus joli. plateau service comme ni mi wax en bois yi on en voit presque partout les gens maintenant

mais am na ñoo xamante ne fii nga leen di fekk ñu teg ko boo ko fi jëlul ba ginnaawaati suba fii nga leen di fekk loolu nag habitude la nit boo yar sa doom danga nga koy jàngal les bonnes manières parce que nit lu fenc li muy nekkee këram rek société bu mu dem loolu la fay loolu la fay mm-hmm. nekkee balaa ngay jeexee exemple feneen nañ ko jëlee fii nii ñu nekk tonton Daouda day wax bay bëgg a dee ñëpp dañuy wax mhm. mais mënuñu si dara te nag doo xam kan nga koy kan moo koy mauvaise habitude la manque de savoir vivre la rek parce que bu fekkee ne da nga am savoir vivre war a mën a dund ci biir nit ñi war ngaa mën a def li nit ñi di def absolument mais dafa am ñoo xam ne jéemuñu dara sowaas jéemuñu dara maanaam lépp dañ leen ko war a jàngal te adduna bi nag yaay yar sa bopp ah. c'est pas lépp lañ lay jàngal am na loo xam ne yaa koy yaral sa bopp mais dafa am ñoo xam ne jéemuñu yar seen bopp ci dara dafa am benn affaire bu simple que ngeen nekk mbolo mais royal lu baax si mbolo bi. mais do def tu vas pas contre courant c'est pas possible. vraiment voilà. en tout cas euh, moi j'aime bien les choses là hein, ces choses euh, assez tout bas euh, ces choses assez classiques tu as ton plateau hein, il est bien joli avec une belle décoration tu as ton plateau service avec des verres assez mignons comme ça là hein, un peu de de, de les flirter en bas voilà. voilà. et tu poses ta bouteille d'eau assez classique aussi hein

baax ndax da koy gën a motiver. pour mu mën a jënd est-ce que gis nga plateau yu bees yi am nga xam ne comme tu disais plusieurs compartiments. yi nga xam ne porcelaine yi la. xam da ngay def fii rek da ngay def fii kii bi nu mu tudd. ba pare jàppukaay bi doore lay. loolu du pour xale de. xoolal da ngay def fii euh, raisin. yi nga nu mu olive yi nga. mariné woon sax Mayte ma wax la benn affaire. Mayte hein? nga def fii nga jël saucisson yi. Mayte saucisson yeeg. Euh, mortadella yi waaw léegi wuy ma waaw léegi wuy ma wuy ma xala Mayte est-ce que xam nga xala jël nga si sa 6 minutes yi. Ah, voilà ma ngoog léegi